asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 17 avril 2019 ñu ñëw ci yëglikaay yi sunu làmb nag tey fële nuy xëy commencé ko yëglikaay bi nag tey bi mu xëyee ñëw daal mois de juin wala boog 2 juin 2019 la ñëw ak ñun andil ñu ca loo xam ne day dina am su bés booba bu buñ ca yeggee fukki fan ak juróom benn ci weeru juin te bu amee nag nar naa neex moo tax bés booba moom bésu foli la ko tuddee bés boo xam ne daal nar naa tàng neex te takkarnaase jàppal yëglikaay bi di lig Nicolay moo waral lu mel noonu ndax nag Gris de Reug Reug seenu jàmmaarloo bés booba ca la nara a am te ñoom ñaar ñii kat li neex ba neex kenn mësu cee daanu ñu ne déet ne waaye ñu roof ca lii nga xam ne nii moo di jéen kayre mi ngeen xam doomi booy kayre waaye kuwensu bu nekk lamsaar dëkk ca fa nga xam ne moo di ñi ca bés booba lay am waaye yemuñu ci de dañ caa dolli leneen ba tey ca bés booba caat bu école de lutte booy bambara ak armée bu benn mu mel ni moom nar naa metti te nar ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa làmb ji loolu sunu làmb xëy tey dinu ko wax leneen loo xam ne tamit yëglikaay bi daa xëy tey ñëw ca mu mel ni ki nag kii nga xam ne nii moom wala ñi nga xam ne ñooy waa Bawol fi mu nekk nii dey daa mel ni ki daal fi mu nekk nii seen place moom jël nañ ko ci làmb ji baax a baax seeni mbir daal mu ngi neex lool sunu làmb xëy tey wan ñu aw foto woo xam ne zaal Bawol moo ca nekk dinu xam ne day Bawol boo bëggee dégg dag fan yii moom seeni mbir dox na ba yegg ci maasàllaa ndax nag làmb moo ca promoteur boo xam ne day mooy Assane Ndiaye ñoo xam ne daal ñu nga ca di jàppale mbër yi ci ñuy amay combat ba ca des tamit mooy mobilisation koy def ci stade yi ba mu saf loolu mooy li nga xam ne nii day moom la sunu lamb xëy tey dinu ko wax koo xam ne moom sunu lamb ñëw na ci moom ne ndax ak ragal wala war lu mu lu muy xalaat wala di ko ragal ci revanche bii nga xam ne war na koo bëre muy Gris Bordeaux ci digganteem bombar ji sunu lamb ñëw tey wax nu loolu leneen loo xam ne sunu lamb dañu koo wax mooy jët li magi moom daa xëy di def yi ñii nga xam ne nii ñooy ay adversaire am nee na daal moom ki mu bëgg a bëreel du kenn wala du ñenn ka ca jëkk nee na ama neex la wala lagros bu fas nee na moom daal aw yaramam fi mu nekk nii ñoo ñu lay laaj te ñoo ñooñu itam la war a mën a defanteel ndax jàpp na ne ñoom ñoo di ay adversaire am jët li moo xëy tey di wax loolu keneen koo xam ne nii moom gis nañu ko wala mu war a bëre ak rakki jët li muy ndandi fall sunu lam ñëw na ci moom nee na ndandi fall li koy xaar mooy daal mbirum rawaas ndax nag boo bëggee dégg-dégg duggoon na foofa ba mu fa duggee itam jët li mii doon wax la bëreel jët li daan ko moo tax suñu lam ne ko yow ndandi est mbirum rawaas imposé wut force ci yow ndax nag duggoon nga fa ñu daan la kenn koo xam ne nii moom dafa daan bay wax na mu daane mooy général Malika ñu ne ko sa diggante Reug Reug nee na li leer ba leer daal man samay capacité moom laa ko imposé daan ko leneen amu fi ndax nag man moom li may def mën naa ko te xam naa ko moom général Malika daal loolu la xëy tey di wax defet boobu rëg-rëg am nag suñu làmb sam pap laaj di laaj ndax lii du gën a may giri de fit maanaam gën koo gonfle daal ba bésam bi mu jëm digganteem ak rëg-rëg buñ ca yeggee mu am ca loo xam ne lu ko neex lay doon ki daanu mel ni moo daan suñu làmb xëy tey dinu ko wax mooy big pato yëglikaay bi ne day moom moo daanu mel ni moo daan suñu làmb xëy wax nu ko waaye li simple ba it yëglikaay bi da caa ñëw ak benn dëkk buñ naan njeej Jeng daal suñ lam ne na boo bëggee dégg-dégg neuf cent mille ñaari nag lañ fa teg ci li commencé 18 jàpp le 21 avril bii nga xam ne ca la ñu ne sunu làmb xëy tey dinu ko wax waaye leneen loo xam ne nag dañ ko fee xëye muy lu méttee métti muy yàlla borom bi nga xam ne day buy def du tàggoo te moom moo yor doole ji te mooy dogal moo jël dem diwaan ba nekkoon écrit Falaye Balde te doon dund fële ca États-Unis ñu koy ñaanal yàlla jéggal ko te yërëm ko waaye ba nu xëyaatee tamit mu jëlaat kii nga xam ne moo di way juru Baye Mandione Baye Mandione itam dëkk caaro yi way juróom woowa di Ablaye Diouf Fall moom itam ñu koy ñaanal yàlla yàlla jéggal bëggal ko yërëm ko loolu mooy li nga xam ne ni moo am mu mel ni kii daal na ma ko waxe woon rek yàlla moom mooy dogal te mooy borom kun fa yàkkoon mooy borom kullu nafsin saayiqatin mawtin waaye mooy mooy borom fa kullu man alaya faaniya loolu lépp togali sunu borom la ñi dem yàlla na leen buur bi yërëm te jéggal leen ñun ñu fi def itam yàlla bàyyi ñu fi ñu yàgg leen a ñaanal waaye loo ci mën a dégg daal taala njaay li am solo te am solo mooy nit ku ne booy jëf na jëf ja baax ndax nag mbaax loo def la du loola bu ëllëgee mën nga koo réccu waaye yàlla yàlla nag ñu jéggal yërëm ñu ci sa si yërmande ndax mënuñu laa defal kat lu la saf dogal yépp yow la salaamaaleykum mbokk yi suivre Leewtoo TV yëpp ñu leen nuyu bu baax di leen ziar di leen jaajëfal di ànd ak yéen ci seen revue de l'arène comme ni ñu koy baaxoo ji def chaque jour ànd seeg sama mag sama xarit Babacar nuyu naa la. ay sa madame Niang sama rakk ah, sama xarit maa ngi lay fay di la nuyu di la ziar di la ñaanal jàmm di nuyu internet yi nga xam ne tamit ñu ngi topp revue de l'arène bi chaque jour di leen ñaanal jàmm bu baax a baax et puis di ko saako si ñoom. Babacar ñu dugg ci waxtaan bi ak euh, le 16 juin incha allah muy journée bu mag bu Luc Nicolaï euh, organisé diggante Gris ak ki nga xam ne nii mooy euh, Reug Reug mais yamu ca ñoom Quench Diène Kaïré Thiat Armé combat yu neex daal suñu lamb daal jàpp ni 16 juin boobu moom dara du doy. waaw loolu moom. boo ko déggee mooy moo lay wan ne li ñu naan ci luy baax la du am roxo bu sedd jàpp ne noonu lay demee pour le saison juin parce que lu tax mooy Gris de Reug Reug defe naa àddina yàgg nañ ko bëgg promoteur yi bëggoon ko barina mais yàlla dogal ko si loxo Luc Nicolaï la amee ki nga xam ne tamit mooy jën kay recoins même noonu la meloon combat bu ñu yàgg bëgg la dinañ bëreeg duñ bëreeg kii daa raw kii rawul ba yàlla def tamit Luc am ko caat bu booy bambara ak armée tamit seen combat yàgg nañ koy lijjanti mais mënu loon a sotti ba tey yàlla def Luc am ko boole lépp si benn journée kon yàppal ne le 16 juin boobu moom comme ni ñu la ko waxee rek dina metti trop te dina nekk journée buy yi waaye li ci am solo mooy que ni combat yi moo neex parce que doo fa gis naan kii daa ëpp kii doole wala kii xale la kii mag la ñoom ñëpp boo xoolee ay génération lañ ñetti combat yëpp Gris 2 ak Reug Reug ku ne xam ne ay génération ay xale lañ yàgguñu ci làmb mais marqué seen empreinte ci làmb moo tax tey niveau bi ñu yàgg si ñu fa bu fekkente ne Diène Kaïré ak Quench tamit ay xale li ñu def preuve bu ñu wane moo tax tey fi ñu yegg si di fa bëri ñu fa bëri kazalika muy jën muy ki nga xam ne mooy armée bu benn baraag ak euh, caat bu booy bambara kon loolu daal moo lay wan ne loo nekk rek aysatu def sa fulla ak sa fayda parce que boo ko defee xëy na yàlla te gëm ko yàlla mën na la jox cër bi nga xam ne mu nga ci yàlla daal waaw ñu dem euh, ci beneen combat muy euh, ki nga xam ne mooy euh, bombardier ak Gris Bordeaux suñu la am di laajte nax kii di Gris Bordeaux warul ragal bombardier parce que bombardier ay revanche moom lu mu koy ñàkk bëriwul dafa nekk koo xam ne ni revanche bu su taxawoon da ci dem ba jeex. maanaam daal daa mën revanche. ah waaw fo day lu jar a bàyyi xel la. parce que nag seen revanche moom xam naa ne fi mu nekk nii defe naa desetut ci ñoom Gris nag ndax mu ragal bombardier wala mu bañ ko ragal loolu xam naa ne moom. du ko nangu parce que li tax mooy bëri woon nañu mu daan ko te gars yi dégg naa ñu naan dóor dóoraat Bombardier itam nag fi mu nekk nii loolu da koo metti loolu te fayu dong la bëgg te comme mën na revanche comme nañ koy ko waxee kon yaakaar naa loolu na ci waa waa Fass bàyyi xel bu baax a baax ndax Bombardier nekkul mbër boo xam ne nii da nga naan cuune la non non du cuune ci làmb ku dégg roi des arènes ñaar ñu sa biir carrière ak noonu mu mën a revanche yaakaar naa ne ku ku war a revanche ak moom kon na waa Fass bàyyi xel bu baax a baax loolu ñu leen wax noonu dañ ci bàyyi xel ñu dem si beneen mbër boo xam ne baa bu Babacar mi ngi xaar combat boobu léegi muy jëtli jëtli bu ek bu écrus xam sa cosaan moom fu mu toll nii nag nee na kii di ama neex la soxla wala lagros daal moom nañ ko jox ñooñu mu bëreeg ñoom. waaw loolu day mbër yàgg na ko wax diw laa bëgg a bëreel jëtli nag champion la. Euh, yàggul si làmb comme ni ma ko waxee sànq si ñële mais tamit vraiment boo ko gisee bu takkee taxaw di nga xam ne mbër la te si biir bëri mi tam di nga xam ne bërikat moo mën a mooy bëri parce que ku mën a bëri la macha allah ah mu ngi wane boppam bopp ba tey génnaat na ñëw wane daan ay ay champion ba ñëw tey gis nga daaw jël bi mu daan Baara Ndiaye waaw jël boo xam ne nii gaawaay ga foo ko takk weesu na ko niveau technique bi tamit kawe na trop trop kon loolu mel na ne jët li ndaanaan la ah, bu defee loolu nag biir Fass yaakaar naa xelam dina nekk ci Lac yaa ngi dégg xelam dina nekk ci ama neex parce que tamit lamb comme ni ñuy wax rek garab la ci kaw lay fekkante yaa ngi dégg te mayante sens moo fi am gestoon te bëre waaw ñooñu mu laaj am na droit laaj leen waaye ñooñu ndax dinañ nangu bëre ak moom loolu tamit dafa jar a taxaw def seetlu waaye li ma koy xamal daal mooy bu ko ñooñu tardel même bu fekkente ne ñooñu nanguñu bëri ak moom su gisee ñeneen ñoo xam ne ay adversaire de taille lañu mu bëri ak ñoom moo gën di toog def année blanche quoi waaw Babacar ñu dem euh, si li nga xam ne amoon na weekend bi passé ci lutte simple bi muy victoire général Malika ci kaw rek rek mu nekkoon coow euh, biir arène euh, Adrien Senghor mu kii di général Malika dellusiwaat na tamit pour wax li nga xam ne nii moom la daanee rek rek muy ñëw imposer ko capacité am te loolu nee na fay na prix waaw maanaam capacité mooy li mu man ak li mu yàpp jàpp ne su ko defee daan loolu la def bëri loolu la général Malick li may wax rek mbër la mu nga xam ne li simple tey yaakaar naa ne bokk na si ñi ko actuellement parce que daaw ba ren mu ngi ci vraiment mu ngi gagné ay tournois yu mag a mag a mag moo tax bu daanee rëg-rëg bëri ci démb ci ko xam bëre wala nga seetaan ni muy bëre war na la mën a bañ a bett parce que li tax mooy loolu mu wax noonu ci capacité loolu la gëm te su ñëwee loolu lay bëre maanaam moom du nangu mbër diriger ko rëg-rëg nag li may waxoon laay waxaat rek mbër boo xam ne nii yaa ngi am looy xalaat ak xel ñaar wala ngay xaar mu mu ñëw non doo ko daan yaa parce que rëg-rëg moom itam bu ñëwee ay moo koy diriger loolu tax tey mu dem ba li simple bi mu toog kenn mënu lu ko lu bëri kon général Malika loolu mu wax loolu moo am si bëri bëri boo ñëwee li nga entraîné ay sotu gëm ko loolu boo ñëwee pour man waroo ci ne di incité loolu nga war a teg ut ci lu la yàlla may nga jël kon ñu ngi koy féliciter encore une fois parce que loolu tamit nit ñu bëri ñu ngi ko doon xaar naan kan mooy daan Reug Reug wala est-ce que diw mën na ko daan di encourager Reug Reug nekk na moo xam ne <laughs> waaw moom day boo ko daanee booy boo jóg de waaw foog mu daan la te itam lii tax mu daan la tout temps mu ngi ci parce que mu ngi entraîné te bëgg na li muy def waaw. mais Babacar defetu Reug Reug bi ñi ngi laajte ndax du yokk fit ki nga xam ne ni mooy Gris di adversaire waaw mën naa mën nañ ne waaw mën nañ ne déedéet ah, parce que pour man Gris ba muy jël Reug rek jëlu koon ko ngir bu ko diw daane mu am lu mu ma yokk da ko jëloon xanaa kay ci li ma xalaat pour moom niveau ba mu am ci wàllum bëri ak doole ba mu yor écrit ba mu ne pour moom loolaal tax laa yaakaar ne moo ko tax a jël loo rëg-rëg pour xëy na jël ko jàpp ne mën na koo daan kon damaa foog ne bu compté ci ni diw daan na ko kon moom man daal da koo jël pour bëre ak moom daan ko ci ay capacité mais kantaan nag di xaar ndax Aysatu bu defee lii dinaa ko mën def est ce que la Aysatu def war ko mën a def loolu question la kon pour man loolu moom du du du daal du lay daal pour man. waaw ñu des euh, ci lutte simple ba tey waa Dieng Dieng la de ah. Dieng Dieng la waa ñuy def euh, gala de lutte euh, simple du du 18 au 21 avril lay doon ah. mise bi Babacar cent mille ak ñaari nag mu nekkaat journée bu neex. waaw loolu de dana neex lool mise bu 900000 francs ak ñaari nag moom vraiment ca Dieng Njeejeng la dëkk bi tudd Aysatu xam naa mënoo Njeejeng. waaw <laughs> maa ngi doog a nag dëkk boobu Babacar. ah Njeejeng ndeysaan man man man de sama ko côté dëkk am na dëkk séeréer bu tudd Njeejeng may ci profité di la nuyu waa Njeejeng ca Ndondol la nekk. commune Ndondol yëpp maa ngi leen di nuyuwaale sama maire maître Pape euh, comme ni ko waxee rek euh, loolu moom lutte simple bi lutte simple bi actuellement mu ngi dox njeejeng boobu waaw defe naa ñaari ñett fan lay diire làmb jooju kon nañ ko waajal waaw le 18 ba le 21 kon 900000 euh, francs ak ñaari nag ku ko naru moom di nga am nar bu dëgër ay sotu fay waaw <laughs> waaw. est-ce du ma la ngemb sax Babacar eh, yóbbu la ci compétition non bu la neexee parce que nag ndaama laata mën naa bëre de. Eh. waaw njool jaaxaluma de te xam na nu ñuy bëreeg ndaama. aja boog naa géré ji licence bi ñu jeexal Babacar ak euh, euh, nouvelle bu tiis boo xam ne nii démb ak tay wàcc na ci li nga xam ne ni mooy euh, monde lamb mooy ki nga xam ne mooy diwaan nekkoon fële ca écurie Falaye doono dund États-Unis moom yàlla jël ko démb ñu xëy itam tàggee ñu ki nga xam ne mooy waajuru góor bu Baye mañoon ñu leen di jaale ak lu lamb yëpp di leen di jaale di ko Baye Mandione ñu koy jaale waajuram ju góor jooju Babacar waaw loolu day moo àddina ànd comme li ñuy wax rek parce que li tax mooy yàlla moo ñu sàkk andi ñu fi te ëllëg si moom la ñuy dellu yàlla nañu yàlla dimbali ba bu ñuy dem si moom rek mu nekk li nga xam ne nii day day day dañuy nekk ci li ko gënal wala li ko neex te lépp ànd ak njégalam ak yërmandeem parce que yàlla moom euh, euh, moom moo amay jaamam moo leen bind moo leen mën a jégal kon yàlla nañu jégal di jaale diwaan boobu ay waajuram parce que diwaan xale la boo xam ne bi mu bi ñu ko gisee ci làmb wax dëgg yàlla boo gisee woon da doon xalaat ne kii ëllëg war na mën a nekk un champion un grand champion mais yàlla dogal ah nit ki euh, fu nekk fi la yàlla woo rek yàlla woo ko mu dem États-Unis nekk fa di liggéey vraiment di fa daan dooleem ba yàlla def tey xëy na mu génne fa àddina ñu koy ñaanal yàlla jégal ko te yërëm ko di ko jàll ay mbokkam di ko jàll waa yëmbal yëpp parce que su yàlla na ko yàlla yërëm te jégal ko xare ko baax parce que daan nañ ko yaa ngi dégg mais ku baax la woon yàlla na ko yàlla xare aljana di ko jaale Baye Mandione ndax sànq rek ndeysaan diggante nañ ci téléphone maag moom waaw di ko ko jaale moom Baye Mandione di ko jaale ay doomam yëpp di ko jaale famam yëpp di ñaan daal ñi nga xam ne yàlla jël na leen ci kàttanam yàlla na leen jéggal te yërëm leen barke yonente bi sallallahu alayhi wa barke salaatul fatiha waaw lii lañ leen andiloon tey ci seen euh, jàngat bi ñu si euh, béggee ci caméra bi Chéri Lébou di béggee Ousmane ci montage bi di ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi suivre Leewtoo TV mais Babacar tey moom euh, bés bi daa am boroom muy sama taaw bu góor njagañaa dundal lu bëree bëri bëri bëri bëri bëri ma lay ñaanal yàlla may la gudd fan ak wér def la magul islaam boo gis dara loo ragal ci sa àddina yàlla def la daal si si ñi gën boole la si ñi gën may la gudd fan ak wér gu yaram la lafal la cat jàppale la daal incha allah jàppal ni sa papa ak yaay moom bëgg nañ la lool lool lool lool lool mais souhaité tam joyeux anniversaire sama beneen doom muy Ibrahima Amar fële ca itali doomu Mado ak Sam ma leen ma koy ñaanal tam gudd fan ak wér dund bay teral waajur di xéewal gu baawaan saawaan gudd fan wér gu yaram leen def rek yàlla def leen ay magu diine ak magu lislaam Babacar. amiin Aïcha njaga boobu suñu jarbaat la parce que sa doom moom suñu jarbaat la. duñ mën def lu dul ñaanal ko yàlla guddal fanam wéral ay cëram xam nga yàlla def tamit mu dem ba ëllëg muy taxaw ay waajuram comme niñ koy taxawoo barke yonent bi sallallahu alayhi wa te yàlla yokk njaboot gi waaw yeneen rakam ñëw fekk ko fa yaa ngi dégg yàlla tamit gën dëgëral sa diggante yaak sa borom kër képp ku yor sëy di sëy tamit yàlla may borom kër moo xam góor gi la yàlla na ko yàlla moo xam jigéen yàlla na yàlla may borom parce moo xam ne moom anniversaire bi ah, wa defaral maquillage yi couleur maa ngi koy nuyu di nuyu magam Adja Thiam depuis États-Unis d'Amérique mais di nuyu mbër yi nga xam tamit ñu ngi nekk euh, partout dans le monde te di ñu suivre chaque jour ñoom Basoka Sentel Sasu Ndiaye Italie xam nga ñoom jëf jël États-Unis mbër yëpp mais tuuti yaay Sarr mention spéciale di ko di ko ñaanal jàmm mais di nuyu ñëpp di balu ñëpp ak di ñaan Sénégal Aysatu yàlla na fi yàlla def jàmm waaye yàlla na ko yàlla def ci addina bi xol bu sedd yaram mu sedd du ma la fàtte waaw Iba non Iba rek. Iba célibataire bu mag bi nuyu nañ la bu baax ah fasal jom waay Iba defal ful la fii ak ay weer incha allah dégg ah. suba si beneen revue de l'arène.